mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck Jotali info ay xibaar yu wér te wóor dale na jàmm ñoo àndi xëyër yu ni kaay ñu xëyantoo ay at a ngi nii ñuy laajte ana projet bi ana projet bi projet bi projet bi projet bi projet bi yéen i kaay gii di Le Quotidien nee na voilà le projet yéen i kaay gii di Sud Quotidien Le Soleil L'Observateur Le Quotidien Enquête Rewmi Quotidien ñu xëy dañu xibaar kaay gii di la Soleil nee na njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye daan nay lancé vision Sénégal projet baa ngi nii président Bassirou Diomaye Faye nee na projet bii nga xam ne moom la ñu leen tegal mooy projet boo xam ne Sénégal gu neex Sénégal goo xam ne Sénégal gu wóor waaye nag Sénégal goo xam ne Sénégal gu mënal boppam waaye Sénégal goo xam ne yaakaar dafay judd Sénégal goo xam ne Sénégal gu natange Sénégal goo xam ne boo xiifee lekk Sénégal goo xam ne boo maree naan Sénégal goo xam ne boo feebaree faju Sénégal goo xam ne boo bëggee jàng-jàng Sénégal goo xam ne économie di màjj màjj Sénégal goo xam ne mbay mi naat Sénégal goo xam ne sàmm gi naata yéen a gi di Sud Quotidien xëy du ñu xibaar naan ñu en tout cas li am ba de sall nañu yónni yàgg vision Sénégal 2050 le président Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko teg ci loxol askanu Sénégal nee nañu nag lu jëm ci wàllum tourisme bi danañu ko daal di suqale lu jëm ci wàllum tourisme boobee nag ñu si daal di dugal lu toll ci cinq cent mille en formels danañoo bëgg redresser Sénégal kàddu yi président Bassirou Diomaye Faye la daan nay wax ne Sénégal dañu ko bëgg a jubbanti ba Sénégal goo xam ne Sénégal gu naat lay doona aménagement développement durable yéen a kaay gi nag nee na moom président Bassirou Diomaye Faye daan nay wax ne agenda 2050 bi nga xam ne moom lañ leen tegal du pour tey rek nga xam ne ñooy génération future dañu leen see sóoraale ñu tey ak ñu ëllëg yéen a kaay gi nee na vision Sénégal 2050 espoir daat nay judd espoir nag boo xamante ni président Bassirou Diomaye Faye dafa daal di woo askan wi yëpp ñu daal nag ànd liggéey engagement boo xam ne ñëpp a engagé wu ci mbir mi yéen a kaay gi di Vox Populi ñi président Bassirou Diomaye Faye nay wax ni ki démb ne dañoo bëgg nag mënal sunu bopp ngir nag ñu mënal sunu bopp mën a la gis nga il faut lu jëm ci wàllum économie bi wàllum koom-koom bi ñu daal di koy téel suñu bopp waaye nag lu jëm ci wàllum xaalis ñu daal di bopp lu jëm ci wàllum énergie ñu mënal ci bopp gi ñu mënal ak nag di doxee nag sunuy aada yéen gi nag nee na président Bassirou Diomaye Faye daan nay wax ne jamono ji nag projet bi nga xam ne moom la ñu leen tegale lu toll ci dix millions nag ci emploi di bëggal ñi nga xam ne nag ñooy ndaw ñee ni jamono ji dañoo ruxee isolé wu ñooñee ci bopp jamono ji dañ leen a bëgg boole ci réew mi mën na la président Bassirou Diomaye Faye nee na équité la woote ñëpp nag daal di ciy gis seen bopp lu jëm ci wàllum agriculture bi lu jëm ci wàllum wér gi yaram gi lu jëm ci wàllum tourisme bi lu jëm ci wàllum éducation bi lu jëm ci wàllum formation bi lu jëm ci wàllum énergie bi lii lépp dañ see bëgg mënal suñu bopp yéene kaay gi nag nee na premier ministre bu Sénégal di Ousmane Sonko daan nay wax ne mbir mi duñu ko fast track di ko ñab-ñabal déedéet développement durable la ñu woote mbir mi nag duñu ko sóor rek daal di ko yàq mbir mi nag temps la laaj yéen a kaay gii di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu président Bassirou Diomaye Faye daan nay wax ne ko def ngir nag bonne gouvernance yorin woo xamante ni yorin wu sell lay doona waaye nag yorin woo xam ne yorin wu leer transparence président Bassirou Diomaye Faye daan nay wax ni ki démb ci seen projet bi danañu xeex lépp lu ñu man ci lu jëm ci wàllum corruption yéen a kaay gii di la sa nee xam ngeen Victor Ndiaye moo nekk ci ginnaaw projet bi jëmmal projet bi nag fii jamono ji soxla na lu toll ci dix-huit mille milliards a

émergent tàngal ceeb la amul lenn loo xam ne lu ci bees la kaddu yi Bougane Gueye la waaye nag moom Bougane Gueye Dany nee nag lii nga xamante ni Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye Faye amul lenn lu ñu wax loo xam ne dina suqali ñi nga xamante ni ñooy béykat yi li ñu wax amul lenn loo xam ne dina ci ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi li nga xamante ni wax nañu ko amul lenn loo xam dina suqali ñi nga xam ne nag ñooy nappkat yi Bougane Gueye Dany daan nay wax ne ñi lii arnaque la de naxaate la yéen i kaay gi dale quotidien moom buggaan ngay dani daan nay wax ne gis nga bu ñu waxantee dëgg gis nga lii nga xamante moom la ñu tegal naan ñu xaw Sénégal vision xaw ma 2050 mën na la gis nga moo plan Sénégal émergent kiif kiif moom buggaan ngay dani daan nay wax ne nag yàggatul dara courant bi dina cher moom buggaan ngay dani nee yàggatul dara ndox mi dina cher nañu yónni yàgg waaye sax gis la ñu dénk réew mi bu bi mën na la gis nga financement bi fan lay jógee xanaa yokk borob Sénégal ndax amuñu benn stratégie de financement lépp la ñu xalaat li ñu xalaat lépp sax jamono ji bu ñu ko xaymaa ay milliards yi milliards yi milliards la te nag lii gis nga dafay naxasal sax économie réew mi dëkk bi nag bugaan gi dañu nee dëkk bi métti na te nag dëkk bi dafay gën a métti ndax marché yi jamono ji boo fa demee doo fa fekk picc chantier BTP yi jamono na enquête yéen i kaay xëy duñu xibaar na ñoom gisuñu seen bopp te ñoom d'accorduñu si organisé te nag yeeyu ñu leen ci bu dee nag ñi nga xam ne ñooy société civile bi ñenn si ñoom ñoo ngi jeexi jaax enquête yéen kay ñu xëy fekk fa Thierno Alassane Sall dan nay wax ne président Bassirou Diomaye Faye lii nga xamante ni moom la ñu mën a la gis nga liñ ñu présenté lii du mooy saafara jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ji askanu Sénégal ñoo ngi koy dund ndax amul lenn lu ci bees mën a la gis nga sax xam nga ñi lan la ñu wax askanu Sénégal a la patiente leen xaar leen fii ak vingt-cinq xaar kàddu yi Thierno Alassane Sall la maître Omar Youm ci biir journal na rien de lenn lu ci bees gis ngeen li tàngal ceeb la yéen kaay gi ñu xëy wax ne moom jamono ji nag am na yaakaar bu baax a baax ci vision Sénégal 2050 ndax nag gis nga moom Abdourahmane Diouf ministre bi ñu dénk njàng mu kaw mi nee na plan Sénégal émergent Macky toog na ñaari at doog ñu ko présenté te nag ñoom président Bassirou Diomaye Faye mën na la juróom benn weer ñu xëy présenté ñu vision Sénégal 2050 boo xam ne xel dal na ci Abdourahmane Diouf nay gis nga ñii ñoo tane Macky Sall de ndax Macky Sall fii la bàyyi woon administration sénégalaise bi bàyyi fi cadre sénégal yi dem ca bitim réew jiggaani ab cabinet international boo xam ne daf koo fay lu toll ci ñaari milliards ak yu fegg juróomi téeméer ciy million te nag loolee mënoon naa ñàkk yéen a kaay gii di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu yi nga xam ne moom ngeen dégg ci njëndum arme ministère bi ñu dénk wàllum environnement jamono ji ubbi nañ si enquête boo xamante ni léegi tey enquête bi jeex bu ñu sukkandikoo ci ministre de l'environnement a kaay gii di Sall dikk ci réew mi ndax dafay battre campagne dem seeti kilifa diine waaye dina amal tournée ci biir réew mi yëpp wax askanu Sénégal yéen gi de la xëy duñu xibaar naan ñi nga xamante ni ñooy baykat yi jamono ji nag nelawatuñu ba yàndoora ndax lu jëm ci wàllum mbay mi nawetub ren bi gerte gi ci boppam jamono ji baykat yi amuñu ci xel mu dal ndax gerte gi nangu wuta waaye nag baykat yi nga xam ne ñoo leboon banque yi jamono ji nelawatuñu ba yandoor a kaay gi de l'observateur ñu xëy fekk fa jéegi Diop bu APR moom nag ma ngi nettali garde à vue bi nga xam ne moo lañ ko gardé woon à vue moom jéegi Diop daan wax ne maanaam mbir mi metti woon na lool yéenewu ma ko sax sama noona yéene kaay gi de la turbine xëy naan ñu jéegi Diop contrôle judiciaire lañ ko def li ñu koy toppee mooy lu jëm ci wàllum escroquerie lu jëm ci lu jëm ci luubal googee ñu leen jorta la ñoom kaso yéen i gi di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu jéegi jóob nag nangu naa fay ngir génn dafa jënd li nga xam ne nag mooy liberté ma waaye nag ba léegi moom jéegi jóob nee na daal détourné wul sàccul luubalut mën ngeen a abonné ci seen chaîne YouTube ngir ngeen di mën di déglu euh, seen revue de presse ak Abdou Khadre Seck. ay xibaar